asalaamaaleykum mbokk yi tey la dibéer fukki fan ak juróom ci jumaada saani muy weeru maamu koor ci atum junni ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëppoo juróom fan ci weeru janvier ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett fan ak juróom bokkul ci lim yu fàtt bu rafet la kon tey ci dibéer ji rafet na li ñu ciy tere tere wàccandiku moom dibéer mooy ku ca watu wala ca tàggoo fukki fan ak juróom ci weer wu nekk rek deesu ca yeggale ab sëy deesu ca tukki ñaanu bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci sa mbugal bis ba ngay dekkal say jaam allahumma qinni adabaka yawma tabaasu ibadak allahumma qinni adabaka yawma bis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na àjjana am na téeméeri daraja diggante daraja ju nekk toll ne diggante asamaan ak suuf firdawsi nag moo ci gën a kawe ci moom la dex yi di balle di dem ci ñeenti àjjana yi moom firdaw si nag fala aras nekk bu ngeen di ñaan yàlla na ngeen ñaan yàlla firdaw si xadis bi at-Tirmidi moo ko nettali qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi ljannati miata daraja maa bayna kulli darajatayni kama bayna alsamaai wal ard walfirdawsu alaha daraja wa minha tufajjaru anharu aljannati al arbaa wa min fawqiha yakunu al arsh fa ida saaltum allaha fasaluhu firdaws rawahu tirmidi waxtu julli yi suba waxtu dana tàbbi six heures quinze juróom benn waxtu yu tegal fukki simili ak juróom tisbaar treize heures quarante benn waxtu bu tegal ñeent fukki simili takkusaan seize heures quarante ñeenti waxtu yu tegal ñeent fukki simili huit heures cinquante-sept juróom benn waxtu yu tegal juróom fukki simili ak juróom ñaar gee vingt heures huit juróom ñetti waxtu yu tegal juróom ñetti simili loolu mooy waxtu julli ci Touba ak li bu fekkee ne ko soo ko féetee penku ñaari kilomètres ji day wàññil benn simili soo ko féetee sowwu ñaar fukk ak juróom-ñaari soo ko féetee gànnaar wala saalum téeméeri kilomètre dina yokkal benn simili jant bi dana fenk 7 heures 28 juróom-ñaari waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak juróom-ñett di so 18 heures 53 juróom benn waxtu yu tegal juróom fukki simili ak ñett yàlla nanu yàlla nangul te nangul leen amin